dal ak ci ak bu mucc ayib. ECODEV est votre émission qui vous parle d'économie, de croissance dans le respect de l'environnement, de la nature, sans compromettre l'avenir des générations futures. ECODEV di seen jotaay bi waxtaanee koom mu jur anam yu sell te vous êtes une multinationale, la grande entreprise nationale, la PME-PMI, acteur du développement ou simple consommateur. Vous avez votre place dans Ecodev, la tribune du bien produire, bien consommer pour bien vivre. ngeen di këru liggéeyukaay yu mag yi bitim réew wala ngeen di entreprise bu mag ci réew mi moo xam ngeen yor seen entreprise bu bopp wala ngeen di góorgóorlu wala ba tey rek ngeen di yittewoo wala jëfandikoo lépp lu meññee ci réew mi jotaayu Ecodev yéen yéen la fi nekkal ECODEV aljuma bu jot lay doon 17h10 jàpp 18h ak Abdoulaye Cissé ci rajo Futur Média bari woon na fii lu ñu doon campagne jëmbat garab ngir sàmm kew gi di suñu environnement bu garab bu am meññeef président Bassirou Diomaye Faye niki noonu premier ministre Ousmane Sonko ku ne samp sa ab mango mango sax ana fu filière bi tollu Sénégal diko ko jéggaani saa su ne te mu tuuru ba di yàqu ci syndicat yi mbayum meññeef ak solob delluwaat ci liggéey suuf moo rfm di dalal man la yasmin hm man nekk baykat nekk baykat euh, surtout ci mango ji liggéey naa ci lu bëri mu soxal ma ma gis ne président de la république dafa jëmbat mango mu nekk loo xam ne daf ma touché ma bëggoon mu jëmbat yeneen di garab mango nag dafa nekk loo xam ne moom ci nek nekk spécialiste di ci liggéey di ci yëngu te xam ne amal na njëriñ réew mi te mënan na jëmale réew mi kanam ñu dalal kon suñu naaru jàmbur jàmbur bi te jaaj gi jor gi ak ñaay bi du kump ci moom di Yasmine Hachem ECODEV ajuma ji bu 17 jotee ci RFM ak Abdoulaye Cissé suñu gan wax dëgg bi ñu koy mujjee seen sax laa wax ma nga woon ca àllu ñaay bi diggante ngajaga boor yooyu di di di di toppatoo ay màngam waaye di raasaatu màngo wut lu mu yokk ci li mu yor waa soxna si. waaw nañ laa gis de ci loo ne madame HM. madame Yasmine HM maa ngi lay gërëm di la sant di am mbégte di wax tey ci waxi màngo mang ci mbay mi batay mang maa installé ay tool di installé ay toolu mango di jappalé ay nit ñu installé ay toolu mango di len organiser mang ci mbay mi batay am HM niko niko maire bi daan waxee sax ndeysaan mm-hmm. nar bi mbokki fan mbokki Louga xam nga nak ñu bari <laughs> buñ ma gisee dañuy def ne dégguma wolof mais dama ko namp ba mu doy sëkk samay maam jóge siin jóge siin ñëw ba njàmbur sama yaay Louga njàmbur njàmbur la luga laa dëkk sama papa sax bi nga xam ne naar la sax mi ngi juddoo Linguère sama di sama et papa mi Sénégal 1892 donc xam nga ne mhm. bu nit ñi mais bu nit ñi ne olof bi <laughs> mais d'accord <laughs> alors euh, fan xam nga journée de l'arbre loolu benn la rek ko que mango parce que yow dañ laa gën xam ci mango. nga sax présidente filière mhm ci walu mango donc dañ waxtaan ci mango mais agriculture globalement ak li nga xamante ni yëpp moo ko wër muy élevage beneen xeetu élevage yooyu yëpp nañ ko waxtaanee mango bi bi nga gisee fan yi ñu jël sax ni arbre totem bi nga xam ne moom la président de la république di jëmbat mango la loo ci dégg ouf ñu ngay jëmbat léegi mango ci mbedd yi fu nekk parce que dañ daan gis programme reboisement moom budul nim di xey wala cocotier gi yoyu ay garab yo xamne peut-être dawul am njariñ ci walu meññef euh jëmbat mango lan la def ci yow euh bima gisé président de la république di jëmbat ngan mango honnêtement amna ci yeg yeg parce que amna ci satisfaction ci la comprendre ci la xamné dara dina changer ci mbay mi ndax euh, boy jëmbat jëmbatal lo xamné di nga ci mëna jëriñu ëlëk manam nga lek ko Sénégal sunu problème mooy dañuy jëmbati fleur jëmbati garab yoo xam ne day joxe ker mais du joxe luy suqal. amul meññeef te euh, jëmbat garab culture la dañuy fàtte ñun que noonu ngay bayee tamaate di bay di bay ariko di bay leneen da ngay bay garab ndax garab euh, fruit moom mooy dundal nit boo seet loolu lu bari ci nit ci ci nit. ci ci ci meññeefu garab lay jóge donc moom mu ñëw ba jëmbat mango te nga xam ne réew mi tey mango mën na ko yóbbu fu sori ndax boo jëlee àll àll yi amul dara yépp boo ko defee màngo ah je pense que dana def lu bari ci réew mi dana def euh, soxna si xanaa du ñu nekk nag di ndékkee mango añee mango reere mango yow doo ko def doo ko ndékkee añee reere waaye kii bay màngoom man na jëmbat mangoom ñetti at ci biir mango bi muy mu fay def euh, jaxato di fa def tamate ba mango ji sax mais da ngay imaginer bu fekkee ne def na 10 hectares mango mango bi génn mu jaay li muy jaay export li ci des bu fekkee ne état bi def na usine boo xam ne dafay jël mango ji transformer ko mangue séché wala mangue coupé découpé ñu def ci jus mais day tax ba nit ñi da ngay fixer population yi parce que aussi euh, am na benn partie côté boo xam ne Sénégal bu bayee bu bu tawee ci ci garab yi rek nga mën a sukkandiku parce que beneen partie bi dootoo ko mën a def te gerte rek kese mënut a yóbbu réew ci ci kanam am na leneen lu ñu war a boole ci sunu culture muy mango muy garabu limon muy orange muy yeneen yoo xam ne daf ñuy may ba ñun dañuy importer li ñuy jus yi fi ne yëpp dañ koy importer. mais mais xanaa léegi loolu réglé na transformation bi quand même ñu ngay ñu ngay. transformé mango bi yooyu wala dafa matagul ba légui gisaguma fi ñu fi transformé ah, mango li fi nek ci jus yëpp jus nek fi dama la bëgg expliquer na la fi bu ñu daggé mango ji dañ koy jël yobbu ko Ghana transformé ji ko wala ñu yobbu ko Dubai transformé ko. ñun suñu mango dañ koy exporter waaw ah bon waaw. am na ñun exportateur de mango lañu. Sénégal. ah exportateur de mangue lañu on a même fait des grands efforts sur l' de mangue frais. grands efforts. On est passé de 3 000 tonnes à presque 20, 20 30 000 tonnes mais li c'est, des yëpp ñeneen ñoo ñëw di ko jënd di ko Maroc di transformer jus wala ñu yóbbu ko Ghana dañuy dañuy dañuy chargé ay conteneur mango di ko yóbbu Ghana di ko transformer te man seetaan naa émission boo xam ne tubaab bi nekkoon Ghana daf koy prédécouper congeler ko exporter ko euh, en Angleterre exporté ko euh, en France alors que nous ne nañ ko def dara c'est une volonté politique et aujourd'hui ak ñi je pense que cette volonté politique là euh, si on appuie euh, sur l'industrialisation mën nañ ko te mën na indi lu bëri parce que dafay créer des emplois et créer une valeur ajoutée la chaîne de valeur va être complète. xam nga yéen ñi nekk ci filière bi tam lu leen tere organiser wu ba xëy na boole seen doole am nay borom barke ci yéen quand même boole seen doole pour mën koo def wala da ngeen àttanul loolu. monsieur Cissé gisuma fi benn borom barke bu ko mën ci ñun ñi exportateur nekk entreprise sénégalaise xëy na entreprise étrangère yi fi nekk placé wu fii mën nañ ko mais nous, en tant qu'entreprise sénégalaise, sénégalaise avons une banque bu nous suivre ci nous boobu nag état bi bu fekkee nous suivre dans suivre zone bu ne mu def fa gadjaga Noto euh no fofu yeb bu fa defé usine de transformation lu lu bax lay don ci bi parce que meun faire def pulpes de mangue aussi meun faire def mangue séchées. Nous nañ exporter mangue def des mangue congelé Nous yeb meun nañ ko def mais ñun ñi de wax dëgg de. loolu bañ ko daree bañ ko daree dalee wax ba léegi foofu lañ ci toll. ci mbay mi bañ fi dalee wax ba toll ba ba am fu bëri fu ñu duggagul ne bés bu ñu fa duggoon danañ génn ci li tooxi doona dem génn ci lu mais volonté politique boobu ak xaalis lañ kan ne mën naa def lii wala def lii wala def lii ñun ñu jàpp ci ñoom ñu jàpp ci ñu liggéey réew mi suqali mbay mi rek a suqali pétrole gaz yépp man je suis d'accord mais nit balaa muy am pétrole wala muy ubbi gazam di teg cinam faaw mu am lu mu lekk. faaw mu am lu mu marché faaw mbay na espace yi amul dara bari na li fi des rek financement yi et puis y a l'expertise. Hmm. il faut jamais oublier les Sénégalais vendent leur expertise ailleurs man dem naa def exportation mangue Mali ay ati at dem Korogo ay ati at. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ils sont très bien organisés 100 fois mieux organisés que nous. il faut le dire ñooñu ëpp mango sax. ñooñu ëpp mango mais ëpp nu suuf dañoo ëpp volonté dañoo amoon président bu leen waxoon nag te ñu baal ma wax ji dañuy bay ba paré doga dem jangi ñun nak on a fait le contraire dañu jangi ba paré ñu duggal ci suñu bop que mbay du yëf yi euh, avons daal voilà je pense que j'ai toujours dit que erreur bi ñu njëkk a def ñun suñu réew mooy dugal ci bopp ñi que bay affaire u baadoola la déedéet boo ci ngay mais bés boo bayee te li ngay bay nga ci dund doo doon au contraire gis nañ dëkk yoo xam ay espace yu ndaw lañuy am aménager ko liggéey ko bay ko dund ci def ci mais nag bay ñetti pour at c'est quelque chose boo xam ne dañ ci war a jóg ci ñi nga dem ba nga xam ne fukki weer ak ñaar dinañ ko liggéey fukki weer ak ñaar nag pour nga liggéey ko faaw nga bay bayu bayu bayu ariko mais nga boole ci garab garab day donc on est dans des pays désertiques il faut que ñuy bay garab garab c'est une culture nañ am culture boobu ku ci ne bay garab ku ci am 10 hectares defal 5 hectares yi garab yeneen 5 hectares yi nga bay dijay. je pense mais garab lan lan ciy dégg est-ce que mango jëmbat la rek fi ak ñetti at mu ko tàmbalee joxe ay doom mu jeex wala technique la science de dëggantaan la. di ko bay ñetti at ba ñeenti at ngay doog am mango mais doo ko mango ji du du da koy witti benn yoon mu jeex garab gi mën na fa def fukki at mën na fa def fukki at ak ñaar. technique la ci entretien bi sax la technique bi est-ce que mango boo ko kii rek ba mu tàmbalee meññ. Mhm. jeex na da ngay toog rek di. seetaan parce que dafa am dix dernières années yi passé benn problème bu nu jànkonteel mooy le problème de la mouche des fruits. Mhm. mu nekk loo xam ne moo ñu delloo ginnaaw. Tu lu bëri c'est toute l'Afrique de l'Ouest nag du ñun kese mhm. jéem na noo manko boole suñuy doole pour xeex ko maanaam buñ doon traité ñu traité waale toute l'Afrique de l'Ouest mais amna na yenn zone yo xam pour man hein, ça n'engage que moi Bo demee par exemple nga dem dugg ci euh, côté au nord nga dugg ci Aéré e, dem côté Tamba dem côté yi bay mango mën nañ protéger mango bi par une culture par une euh, une lutte contre la mouche des fruits yow foofu yëpp dugg nga fa dugg naa fi ay endroit yu bari de man yàgg naa eh, ci mbay mi dégg depuis 94 damay tukki rek di dugg rek parce que Sénégal quand même boo duggee ci ngay xam potentiel dëggantaanu Sénégal boo toogee Ndakaaru gi doo fi xam dara Dakar tey pour nga dundal ko faaw nga dugg ci àll bi dugg xool potentiel àll bi mën a dugalaat dak bay eh, bay eh, dundal Dakar parce que dinañ dem ba temps boo xam ne Dakar bu bëggee dund faaw mu toog di xaar àll ba bay ñëw dundal ko parce que ñi fi fi ñu amoon ñun pour ñu bay ko yépp dëkk nañ ko

soble di exporter te ñu ne dëkk bi soble ngi fi manqué ñu ne ñu ngi def mango ndeke ña ngi koy exporte yu baax yi ñu ngi koy exporter yii nga xam ne mooy nëb ci syndicat beeg yooyu mooy yi nga xam ne ni moom lañu ñu dese da ngeen mënul fexe mu des fii tamit balaa ngeen koy yóbbu bitim réew dama jël ñaari échantillon yëpp mais mën naa ko multiplier à l'infini mën nañ ko multiplier à l'infini xam nga exportation aussi day suqali réew Monotai tey toog ne doo exporter li ngay bay. waaye bay dundé ba paré tamit nag. waaw dinañ bay dundu bay dundu bi fi muy nekk conservation. stockage ben partie bi dem ben partie bi dess parce que li ñuy bay yépp Sénégal potentielam am ëpp na fofu bët Sénégal da daan def ay deux cent mille tonnes trois cent mille tonnes di bay te teewul Sénégal da daan dund donc ça veut dire qu'il faut que ñu bay exporter pour mu indil ñu ay devises il faut que ñu bay aussi dund soble bi dama ci bëgg indi benn parenthèse bu ndaw parce que temps yële dama dégg ñu ne soble amul soble dafa manqué. loolu kay chaque année débat boobu ñëw. oui mais surtout buñ tollee ci yenn saison yi. am na benn débat boo xam ne xam naa ne li may wax du neex ñu bëri. Mhm. mais Sénégal day exporter soble balaa moo koy exporter te du ko jaay dëkkam te exporter soble bi muy exporter soble boobu muy exporter moo gën bi muy jaay biir dëkkam lu tax. producteurs yi kon bu soble bi di manqué fii ñoom dañuy préféré génnee ko. am na ñoo xam ne dañuy bay soble di ko exporté ñeneen producteurs sénégalais yi nekk fii nga xam ne ñoom dañuy bayal réew mi ñooñu la ñu war a jàppale ba nga xam ne seen mbay dañ koy gën a euh, tëye mu gën a nekk de qualité ñu defal leen foo xam ne dañ koy stocké parce que foo mënta demit exportation day am mais dafa war a am loo xam ne état bi moo naan ah quota sécurité dafiy des temps yi kat soble amul yéen ñiy exporté bàyyi leen ko fii mais nak day fekk aussi ñi exporter dañu am ay contrat mënu koo bañ a exporté waaye am ni muy aussi état bi mën na jàppale ñiy bay soble bi ba ñuy bay lu ëpp lolu li Sénégal soxla ñun mën nañ ko bay mën mën nañ ko baña jënd bitum rew mais le problème aujourd'hui dañu nekk ci dëkk bo xamné importateur importateurs yi ñom la gëna arranger ñom ñuy indi soble di ko jaay que ñi bay soble te ñiy bay soble nak aussi ñom fi génnuñu dëkk bi seen liggéey moy bay dundu faaw ñu jappalé leen ci li ñuy bay ñu mën ci dundu aussi ndax ci lañ fii la nekk ci réew mi bu dul loolu dañuy daal di sonn ne seen i doom jël leen gaal yi ngeen dem wuti leen loo xam ne boo ëllëgee ñun bu ñu sonnee seen i ma seen i yaay ak seen i papa dañuy sonn ngeen ñuy jàppale alors que buñ leen fi bàyyee jàppale leen daanaka mën na am la ñuy def fii di ko def ci seen réew mooy suqali seen réew jëmee la ko kanam parce que man je suis consciente et persuadée que réew mi dama koy wax toujours suñuy doom ñi ngi dem mais li ñu xamul mooy ñeneen ngi ñëw ji jël seen place fii

da ngay gis koo xam ne dañ koy financer mu ñëw mu jëlaale 30 personnes 40 personnes 50 personnes accompagner leen ñuy bay di ànd zone boobu yëpp boo demee dans la zone de ñaay dafa dafa nekkoon zone bu dynamique pendant la l'exportation. exportation da gis 1000 2000 personnes ci biti mais foofu yëpp ñëw na raser ko def ko ay kër kenn bayatu fa nit ki nag foo mënatul bay mënatoo ay kër kese fa nekk ala kulyalin foog nga toxu dem feneen wuti leneen feneen donc loolu moo indi que mbay mi wàññeeku mais potentiel au Sénégal je ne pense pas que tay tay tay, on peut tout faire dans ce pays on a l'eau on a le soleil on a la terre on a les idées aussi mhm. et on a la on peut avoir la technologie la technologie s'achète toutes les technologies qui sont au monde on peut les installer ici te da sénégalais yu c'est une technologie qui est ar mais nous ko appliquer fi? l'appliquer appliquer ci ou les appliquer même en Europe on peut travailler, on, nous parle de serre. On ne peut pas parler de serre au Sénégal, il fait trop chaud. On doit parler d'abri. On peut mm. aussi mettre des abris, faire beaucoup de choses au Sénégal qui permettent aussi pour l'élevage. Parce que mbay aussi ben, mbay sans élevage. Mm-hmm. élevage aussi c'est na mbay. te garab aussi ci ci ci ci ci ci ci aussi.

niveau de Tambacounda, mais il fait des choses extraordinaires. Mhm. C'est quoi C'est la volonté et l'argent. Donc volonté beaucoup amnanko. La majeure partie des Sénégalais, il faut pas se cacher, ils sont pauvres. amuñu moyen mais wax qui euh, euh, difficile c'est agricole ndax euh, la c'est-à-dire ñu ci ba ci ñu ngay liggéey di ci tedd. Euh, dinañ bon dinañ liggéeyaat mentalité yi mooy problème ndax comme ni ma la expliqué saa yoo waxtaanee ak nit mu la tu baykatan ah, doo mës a bay ba tedd baykat yi fi baadoola la parce que dañ ko mës a dugal ci suñu bopp mës ko ancré ci suñu bopp ñu koy dégg ba nga xam ne ñi koy dégg defe ne loolu moo am du dëgg parce que xëy na dañoo demul feneen. ba gis leneen wala dañu gisul ay ouvrier agricole yoo xam ne dañuy dawal oto yu rafet wala leneen mais da ngay gis ñoo xam ne aussi ñi ngi tedd ci si li ñuy bay am na peut-être il faut que ñu ubbi waxtaan ñuy waxtaan di génnee ay sujet comme ni ngay def nii di génn ci télévision bi di wax lan la bay mën a indi di jël par exemple tey bu fekkee ne jeune dafa ñëw amul liggéey mun la damaa bëgg a bay yow amoo suuf boo ko jox maire ba mu dëkk du ko jox suuf fu mu koy bayee c'est le problème aujourd'hui nous avons une volonté pour faire par exemple hectare yow ci sa expérience expérimenter modèle qui nit ñuy wut sotti c'est-à-dire peut-être initiative mu jural la modèle expérimenté dañ ko def ci ñaay bi ñaay bi la le fait que ñu jël ñaay bi def simplement un site d'habitat mais ñaay bi ba muy exister bu njëkk ba de 70 ba bët Sénégal desee ba léegi kenn mësul dem bàyyi sa morom da ngay gis ku ñëw am programme mu 1000 tonnes woo 100 personnes ñu ñëw toog nga ne ñaata nga mën a bay nga ne ah man de 2 hectares ñun la xaalis baa ngi nii semence baa ngi nii bayal kii xaalis baa ngi nii semence baa ngi nii bayal mën nañ ko def ba tey noonu loolu lañ war a def c'est la solidarité et c'est ça aussi que baykat yu bëri comme du ñu mën a dem fenn yow miy dem di gis leneen yaay indi lu bees nga la ñëw leen ñu bokk man kat gis naa lu bees mais lii buñ ko bayee dina am xaalis bu ko defee yow boo leen boo jiitoo ñoom ñu topp ci ngeen ubbi bu ngeen ngeen élargir euh, zone de production bi par exemple biñ fi bëggee def asperge verte chinois yi ñëw di ko fi expérimenté mais on l'a fait et ça a marché on l'a fait ça a marché ñëpp a bokk ci mais bët Sénégal lañ ko defoon moom la ñuy wooy léegi pôle urbain ñu tabax ci ay immeuble foofu waaw foofu lañ daan bayee ñun foofu par bés 2000 personnes daan nañ fi dugg di bay jam ñaajo bii ñu dindi souf si bamou mu set wicc suuf suuf am bo xamné amul fenn ci Sénégal beut Sénégal daan fi bay 300000 tonnes ñu jël ko def ci ay immeuble amna na bu tuddu fofu lakku Bancaar avec Jacques Diouf à l'époque yalla nako yalla xaré xare yeureum ko on l'a réhabilité def fa ay jeun fofu lañ daan def suñu moto pompe des fois di pompe di bay li amone jam ñaajo amul won fenn ah. dañoo xey suba ñu dindi ko bamou mu set wicc dàq nu fa nenu acca wuti len fenen fu ñuy wutee fenen feneen foo dem ko fa new taxaw mun la sama mamako mu moom foy fooy léegi yow bo demee ba say dom expérience bobu ñu am ñom expérience bobu ñom ñu amone pendant 40 ans on s'en rend pas compte on l'a perdu parce que beut Sénégal jàngaloon na leen fi jangal bo xamné amul fenn le Sénégal en matière de d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest était le premier dans les années 70 ba 80 ba 90 donc lolu il faut que nous dellusiwaat wacc léegi ouvrier agricole dëgg la boo bëggee woo nit ne ko kay nek ouvrier agricole dama lay fay 80 000 wala dama lay fay 100 000 loolu du tax mu am ambition pour nekk ko mm-hmm. mm-hmm. l' ambition bi tax moom muy ñëw di ko nekk faw nga ne ko kaay man am naa fi ñaari hectare jëlal benn hectare bi ma financé la ko man ma garder ñaari hectare bi bu ko defee yow boo fina bu ma la financé yow di ngay béy ci sa benn hectare bi yaa ko moom mais du tee weer bu dee lii ma mën a fay danaa la ko fay maanaam nga boole agricole yi ne leen mën ngeen a exploité hectare bi waaw dañ daan def aussi ci nawet bu ñëwee comme ñun daawun woon bay nawet dan la daan wax ñun bay nan ba paré mais nawet bu la neexee lu la ci nex bayal lo bay rek ya mom pour nga baña dem pour garder en fait ces personnes qui avaient euh, le courage de rester et qui avaient aussi le savoir-faire dont il faut pas se séparer. mais on njaatige bi noo leen di dimbalé parce que amna ño xamné xeyna ne xëy na bu suuf bi nekkee tamit. non jox semence d'accord jox leen engrais mais aussi pour que ñom ñu xamné ne li ñuy bay aussi xaalis la té dañ ci war am respect da nga leen di wax. dama leen di financer lépp ba pare kii bi nu mu tudd engrais bi ak ji bi da ma koy rembourser ndax yow it nga xam ne yow. aussi da nga may nu la lépp parce que duñ la may lépp bu ko defee nga góorgóorlu di nga ci am dara rembourser li ci des man bu ma neexee man la garder li ci des maa la ko may mais foofu ngay des nga utiliser matériel agricole bi nekk foofu te suuf si day fekk mu am li nga ko joxoon yëpp jeexul. Mhm. mën nga bay. té bay bi fay garder engrais bi day garder lepp ci souf ci du jeex lo ci bay da nga ci da nga ci genn nga daal di jël nga jaay yaa mom parce que ñun ñëpp nation lañu ñun ñëpp ñoo bok lu duñu mënu ñu réro ñoo bok té ndimbal dimbali wul ko tané do nit ndax loolu lañ la jëkka laaj dimbalil ko tané ngeen mëna and ñuy dimbalante di and moo amon ci ñaay mi ah. mm-hmm. li ma la wax liko dindi moy li tax lañ fa def ay kër mais bañ fay def ay kër fàtte nañ lenn nit mënul dugg ci kër te lekkut tey boo seetloo lépp a cher lu tax parce que fañ koy bàyyi ji moo sori ñu koy transporter di ko indi di fay transport di ko indi kër yi aussi xat nan parce que 150 mètres carrés mënoo fa am sa potager bu ndaw loolu yëpp il faut que ñu xoolaat ko xoolaat suñu bopp état bi aussi jàpp ci mënuñu ne état du ci jàpp état moo ci war a jàpp pour ñu suqaliwaat Mm-hmm. ANIDA mi ngi defara mi ngi suqali doyul. Ah, ci àll bi ci àll bi. Mm-hmm. seen liggéey rafet na ñi ngi suqali mais am na yeneen zone yoo xam ne boo fa demee amul dara zone yooyu nag la ñu war a répertorier toog xalaat nan la ñu mën a def ba ñooñu ñu mën leen a jàppale. parce que buñ leen jàppalewul dañuy dem tu au Sénégal tu rentres dans des zones c' kenn nekkatu fa ay mag rek nga fay fekk xam nga ñooñu mag kese mun mënoo ko bayloo ça veut dire que jeunes yi seen espoir deñ na ba ñu dem. loolu nag loolu lañu war a changé ci mbay mi mhm. mu nekk ci ji euh, jëmbat ci bay ci defar garab Sénégal gii ku ko jëmbatoon garab ba mu fees benn problème nit du ko am justement fan yi dañu gis suñu wenn euh, kilifa gu baax professeur Mbaye am ñu koy nuyu au passage mu demoon mu demoon gine xam naa dafa faa gëj mhm. mu ne moom li ko yéem mooy gine dafa gis nii fu mu tourné garabu mango garabu mango garab ba mu xaw a saalit mun ñun xoolal en ce moment là ñun ay niima ki xay ak yooyu la ñu fi am quoi te suñuy reboisement tamit ci xeetu garab yooyu la eh, def nga Côte d'Ivoire def nga Guinée lan mooy suñu différence ak pays yooyu ci wàllu mango bi nga xam ne ni moom nga gën a xam par exemple. dem naa fa dañu am benn chance boo xam ne ñoom it day taw tout le mhm. ji seen i mango mais mango Sénégal par exemple coloration bi mu am benn pays ci yooyu amu ko suukar bi mu am. benn pays yooyu amu ko mais. da nga bëgg a mango Sénégal moo dàq mango mango Guinée. ah tey mais yow xam nga ni ñun. mango mango Guinée mango mango yi de. non non hmm. ñoo leen dàq mango parce que tey boo demee Europe dinañ la ko wax ñoo leen dàq ci goût mango parce que day taw seen ndox dafa bëri amuñu suuf amuñu kii naaj bu bëri donc day verte ñoom problème boobu la ñu am problème de coloration et y a trop d'eau mais teewul foofu yëpp jëmbat nañ ko ñun xam nga lan mooy suñu problème dañuy xey suba la coopération indi la benn indien fële mu ñëw naan la defal niim parce que seen dëkk niim a ko intéressé dafay defar benn usine pour defar huile de niim ñu bàyyiloo ñu réew mi yépp niim te xooluñu sax ñun ndax niim ñun soxla nañ ko wala soxlawuñ ko. dañoo war a toog di xool di xoolaat suñu bopp lu ñu soxla dëggantaan ñu koy bay am na bi ma nekkee xale am dañ daan dugg ci àll bi di lekk par exemple dañ daan bu nawet ni dugóor je pense que boo waxee ñu bëri dugóor xamuñu ko. Mm-hmm. dimb xamuñu ko. darkase darkase darkase mhm. ñu ba bon darkase sax à la rigueur mais dimb ku ko ci xam mhm. pourtant biñ nekkee xale bu buñ daan dugg ci àll bi loolu yëpp amoon na fa mais loolu ñun dañ ko daan lekk mu nekk xale yi léegi de xamuñ sax uul euh, uul de xamuñu ko du dugóor aussi jeune papa ju xam nañu mhm. mais yooyu yëpp dafa bokkoon ci aussi suñu santé parce que li mu daan def suñu santé parce que boo ma dégloo benn paa mu ne garab yooyu par exemple bi ñu ko daan lekk daf ñu daan aar ci lu bëri mais la santé coûte cher à l'État du Sénégal Mhm. Beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas se, soigner. Aujourd'hui, les méthodes que nous utilisons sur l'agriculture sont trop invasives sur utiliser engrais, utiliser pesticides, utiliser lunettes. Taï, cancer de foie, cancer de ceci, cancer de cela. Pourquoi Parce que l'Union européenne aujourd'hui nous interdit d'utiliser beaucoup de produits. Mhm. Mhm. On ne s'est pas posé la question pourquoi. Mais je, je pense que là question, c'est que eux, après la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas de quoi manger. Il fallait nourrir la population européenne. Donc, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de créer des substances chimiques et des produits chimiques pour accélérer et pour faire du volume. Mais 50 ans après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de payer les pots cassés parce qu'ils ont beaucoup de cancers, ils ont développé beaucoup de cancers. Mais aujourd'hui, ces usines-là, qu'on le veuille ou pas, mhm. ils n'ont pas fermé. Ils ont trouvé une,

amna ñeneen ñoo xam ne Houphouët Boigny dafa xool réewam xool ko bu mu seppali ko woo burkinabé yi woo malien yi ne leen kaay leen bay may dagg ku bëgg 200 hectares mën naa la daggal boo demee Korogo nga taxaw da ngay gis benn nit kese mu yore la 200 hectares mango di ko toppatoo. fii tey tool boo dugg boo taxawee sax boo laajte woon un hectare sax maire bi ne la toolu jàmbur. donc ça veut dire que c'est avec les maires qu'il faut qu'on travaille aussi. Mhm. c'est avec les populations qu'il faut qu'on travaille. c'est pas normal que nit aussi ñëw zone nit jël limu moom mu nekk ouvrier agricole ça il faut arrêter c'est une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom mhm. nit ki da ngay ñëw ci fi nga koy fekk da nga koy jàppale mu suqali fu mu nekk ngeen ànd yéen ñaar ngeen mën a am mu gis ci boppam nga gis ci sa bopp loolu moo lay may nga liggéey liggéey bu rafet mu barkeel it mhm. mais loolu aussi il faut que ñu recommencer waat ko daan nan ko def hein? ça existait ah faut pas mhm. croire mais il faut que ñu recommencer waat ko Guinée li mu mën mën nañ ko Côte d'Ivoire ils sont très bien organisés mais en coopérative ça reste des coopératives tey bu doon jaay mango ñooy fixé sen prix au mango la campagne bi ñeu fixé nañ ko nee la temps de mango la kilo mango tant Sénégal da nga leen di wo ñom ñepp ñu ñëw ñu waxtaan ba d'accord ci prix bu ñu wàññee ko ki jaar ki dem ties ki dem d'ar ki dem fële ñu changer prix yi mu nek leneen Lo gis dañ koy waxtaanee déggoo ko tant que wonu ci suñu biir waxtaan ci suñu biir d'accord ci suñu biir xamné ne ku ci né war nga dimbali sa morom mu jëm kanam du ñu dem fenn on reste sur place. Mhm. Alors que les coopératives, elles sont toutes bien organisées, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire. maintenant na def la même chose hein. mango bi yow jamono relancé, ñu koy relancer xaw nga ci génn sax yaa ngi ci. waaw loolu moom dëgg la euh, dama ci xaw a je vais dire pourquoi. parce que producteur euh, am le droit jaayee mangom 400 francs 350 450 mais amna lenen lo xamné aussi on va sur un marché international le prix lui ne bouge pas donc boko ko ci momit te yow ngi jaay mënoo ci am dara ba dara du la dara dellusiwaat donc amatul sens moo tax ma ne woon naa xaar tuuti man ma dem jël samay tool jëmbat samay mango bopp jëmbat samay citronnier bopp jëmbat samay grenadier bopp di dem ak sama bopp. koo xam ne mën nga ñëw jaay ma ma jënd loo xam ne bu ma ko jaay jëndee ci yow dinaa ko mën a jaayaat yow nga am ci dara man ma am ci dara ma jënd. mais su fekkee ne mënuma ko ma jël sama propre production jaayal ko sama bopp loolu moo tax autre chose aussi tey par exemple nii taw bi ñëw na démb dañu obligé raser tuuti suñu mango jox ko femmes yi ñu koy jaay mais wutuma ci dara dama ne lu ngeen ci jaay lu ngeen ci am jël leen mais bu fekkee ne dañu nekkoon ci pays bien structuré dama am man loo xam ne moo may neex je vais en faire de la pulpe de mangue ou bien de la mangue séchée loo xam ne bu ëllëgee bu fekkee ne euh, liggéeyuma temps yoyu mën na ko jaay jëfa jafandu ci mu rapporter ma dara parce que mbay il faut que tout le temps dara di dugg mënoo bay tok ñetti weer di xaar mu ñor pour nga mën a dund du soti hmm. donc mango bi dama ci taxaw touti parce que il faut que ñu changer méthode liggéey mango chaîne de valeur bu wesso mbay élevage ci walu yi nga nek yoy mom yoy yoy yooyu yomna yomna yomna naa yomb naa yomb mala man am naa écurie donc am naa fas donc yomb naa toppatoo waaw euh, am naa écurie sama doom moo koy toppatoo ñu am ay fas euh, daf dafa war sax ñu am ay mm. fas fas dafa nekk animal boo xam ne yàlla ci boppam moo ko suturaal bëgg ko nag dañ ko soxla parce que meew mi ñuy importé mm-hmm. tey Euh, Lignes développées qui ferment les tiers au Sénégal il y en a beaucoup on mm. voit que sur sur ce point là on a beaucoup avancé on s'est beaucoup amélioré et qu'il faut qu'on continue à améliorer les races qu'elles soient bovines ou bien khari, ou bien bëy yoyu, de am solo parce que bay moi andak ak loolu élevage ñoo ànd naa dissocier même tay bo demoon Europe tey koo gis muy bay mi ngi élevé parce que bo dindee des ñax boo ko rouler ba nga ci say say nak. bu mu indi la leneen ñii aussi yore seen i bëy ak seen i nag ak seen i xar dañuy ñëw des fois ci ñun ne na ah yow de récolté nga fii est-ce que mën naa fi dugal samay nag ñu lekk ko nga ne dugalal mhm. mu dugal ay nagam ñu lekk ñu nettoyé la foofu ba mu set daal di dem donc c'est une coopération les deux vont de pair jusqu'à la pisciculture je pense que c'est il faut mettre tout ça ensemble c'est un bloc wàllu wàllu wàllu élevage bi eh, xam nga léeg-léeg jaxte jaxte yi ñoom ndawal bi rek lañ ci séentu mais xeyna amna leneen lo nek ci chaîne de valeur bi ci walu der ci bopam Sénégal pour ñu taxaw ci. Ah. te dafa aaju sax ci ni ngay xonté jur gi pour am deru qualité yoy tamit. Tout jar a xel la tout à fait laal nga fo xamné duñu faral di ko laal. un naa ben émission boo xam ne euh, Louis Vuitton et Hermès ñu wax ci sen der yi ñu utiliser pour seen sac la majeure partie on vient les chercher ici jël ko en vrac munu roog loo xam ne daal du dara ñu hmm. jënd ko à un bas prix yóbbu ko liggéeyaat ko def ci ay saak jaay la ko 3000 euros 5000 euros am na ñu mu jar ñu dem jëndi ko yoo xam ne nag ba sax jaru ko nag ba jaru ko léegi aussi boo demee ngay mexe gii lañ fay liggéey mardi Italie wan naa la benn benn nit buy defar ay sac bu tudd Mortala mi ngi nekk en attendant je le fais de la publicité hmm. parce que c'est un excellent hmm. ouvrier euh, un excellent artisan mi ngi nekk wetu marché Dior li muy liggéey ci xeetu saak li muy def ci dàll li muy man amna naa partenaire bi mu ñëwee dafa defe ne li ma saak bi ma yoroon ci Hermès laa ko jënde wala Louis Vuitton fii lañ ko defaree te der bi fii la ko jënde donc aussi mbay mi il faut que aussi ñu dugal ci xelum nit ñi il faut ñuy bay dundal sunu sunuy jur parce que tey boo bëggee importer maïs importer mil lu ne nga importer ko pour dundal sa njur doo ko mën mënoo saaku pour nga dundal sa xar man sama gardien saa yu ne ma saaku bu jeex na ma feebar dix mille lay jar onze mille donc da dem ba nit ñi ci alors que tu as le tu as le pamicom tu as plein de cultures fourragères la luzerne boo xam ne tey nga ko bay di jox même ministère de l'élevage mën na financer di suivre en période de soudure ils ont transformé machine transformer en granulé parce qu'il l'avait fait mais à l'époque il n'y avait pas de répondant aujourd'hui je pense que les gens ont compris que importer l'alimentation importer tout ce qui va dans l'alimentation de nos bétails c'est une erreur on ne peut plus le faire on n'a plus les moyens de le faire mm. donc il va falloir réfléchir à comment nourrir notre bétail et le faire nous-mêmes et on est capable de le faire Yasmine yow yang Yasmine HM yang dem ci ba parce que ma dem tol dé rek man sax ci sama bop sax xool naa sama bop damaa defoon peut-être que euh jullit laa mais je me suis dit dans ma vie antérieure là baykat la waron don parce que normalement waruma won nek baykat ah j'étais pas censé mhm. mais ma ñëké dugg ci bay sama yaay nako yalla yërem dafa ne dañ ma liggé dañ ko liggé mo mënu rafet jek jang dugg ci àll bi di xey suba ba ngoon jot falaa daan fanaan le président James Wolfenson fekk na ma sama biir tol bokkoon na ci tol mhm. waaw Mama ak Habib Thiam yàlla na ko yàlla Jacques Diouf yalla nako yalla yàlla fek nama na ma sama tol même madame Wade fek na ma sama tol avec toutes les femmes chefs d'État ñu visité ma amone ay serre je faisais des herbes aromatiques j'ai toujours aimé la terre et je pense que le euh, mbay ci Jamu yalla la bokk ben ñaar daf lay tax nga day euh, day wàññi ci yow lo da ngay def ne yow tu es quelqu'un alors que tu n'es rien du tout ba ba ma njëkkee bay haricot vert <laughs> du ma ko fàtte ma jëmbat ko taxaw di xool mbay mi rek sama benn ouvrier bu ne woon foofu càmm yàlla na ko yàlla yërëm moom it ku mag la bu di ma xool rek parce que mu ne ma madame lii ci loxo yàlla la nekk bàyyil di ko xool tous les jours te nga dem defi leneen nga bàyyi kook la yàlla. <laughs> balaa nga ko catul sa bopp voilà <laughs> mais mbay ci loxo yàlla la nekk yàlla moo def mbay pour ñun ñu ciy dund ñu ci dundal lii lekk ci lii lekk yépp ci bay sax dafa bëri. Mm-hmm. golo dina lekk ci sa mbay. écureuil yi dina lekk ci sa bay picc yi picc ah? même kaña yi sax ñi nga xam ne dañ ko bañ sax danañ ci lekk gars yi dañuy bay te duñu saraxe tamit dañuy ah. génne sarax waay bay nag keroog damay bay dama def karasol ñu ñëw ñu ma ah golo yaa ngay lekk karasol yi ma ngay jeex man leen ba jox leen seen part ndax ñun kat ñoom fi ñu moom ñun ñun ñoo ñëw dëkk foofu hmm. donc comme ñun jël nañ li ñu moom ala kulli alil fokk ñu bàyyi leen tuuti pour que nag ñoom it ñu xewlu ci hmm. ñu nit ñu jaamu ci yàlla muy mboq muy dugub muy lu ne ñun rek yàlla sàkk nu ñun kese daf ñu sàkk ñu ñëw ñu nit ci li yàlla sàkk li gën a mën a détruire l'être le plus destructeur de la terre c'est l'être humain c'est nous mhm. c'est pas les animaux parce que même animaux yi bu ñu lekkee bu ñu suuree bàyyi fa ñun nag dañuy dajji di dem rek tant que amuñu lu bëri lu doy du ñu arrêté. Yasmine Hachem jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm nañ bëgg te loolu dalal la ci suñu jotaay bi waxtu wi xoj nañ waaye xam naa du ñàkk danañ gën a yaatalaat jotaay peut-être fekk la sax ci tool bi. xool bu baax nooy nooy doxalee que ouvrier yeeg coopérative yeeg groupement jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci yëpp ba ci écurie bi sax. waaw maa ngi lay la sant. 18h le journal Jean Paul Ndour merci beaucoup.